bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, mbokki téléspectateurs yi Almouridiyyah TV ñu ngi fii ba tey ci euh, Touba euh, kër sëriñ Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine mu Cheikh Mouhamadou Fadal ñu koy nuyu bu baax di ko ziare ak mboole mbokk yi nga xamante ni ñoo teew xew-xew bi nag xam ngeen ko muy wuy jik suñu borom mu sëriñ Atou Diagne jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah moom nag mu bokk ci ñi nga xamante ni yàlla dogal na. mu jaxasoog sañ aatu ay at ñu ci bari sax xëy na diggam ak Cheikh Mamadou Lamine la ñuy gën a miin waaye mel na ni sax jiitu na loolu ginnaaw bu ñu ko nuyoo euh, siyaare ko ki nga xamante ni euh, mooy sañ aatu nañ koy siyaaree mboolem njabootu Serigne Touba gépp di sàkku ci moom rek yenn kàddu yu seere yoo xamante ni dox na digganteem ak euh, sañ aatu bismillahi rahmaani rahim alladina isa asabatum musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Madou Lamine noo ngi lay delloo nuyu bu baax <clears throat> kàddu yi dana xaw a di si ñun waaye ginnaaw bu nu siyaaree di màggal di ñaanal sunu yaakaar teeg ëllëg Cheikh Madou Muntaxa di ko gën a sant bu baax sunu xel di gën a dal ci moom bu baax sunu yaakaar di gën a dëggu ci moom bu baax yi ci mujj taxawaayu démb bi rek gën naa dalal sunu yaakaar gën naa dolli sunu yaakaar gën a dalal sunu xel waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolem leeri ku tedd gi yëpp ak jullit yëpp di ko siyaaree moom sunu yaakaar te ëllëg Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax suñ ko mënee tuddee général war a garaat bi gën a rëy ci liggéeykat mas na ko tuddee jëmm ju tedd ji nga xam ne sunu boroom dëkkoon ak moom ci àjjana firdawsiya amuñu ci yaqin jullit am njort la am te yàlla dogal na jëmm ji nga xamante ni moo fekk kam daan liggéeyal moo fekk ka mu nag dara moo fekk ki nga xam ne moom la daan bëccëgal daan ko guddeel muy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bi mu tàmbalee liggéey bi nga xam ne mën naa ne képp kuy murit ànd nga ko ak moom mu di Hizbut Tarqiyyah muy at yu baree baree baree bare gis naa ci ay nataal yoo xam ne sax 1976 la am na ñu wax soixante-dix euh, ñi nga xam ne ñoom la jamononteel ci saayir donte njabootu sëriñ Touba gépp la jamonoonteel waaye tàmbale ko suñu suñu suñu suñu maam ju tedd ci Cheikh Abdoulaye Lahat ba ci maam Saliou Mbacke mi nga xam ni moom mujj ci leer ku tedd ki ci saayir ak Cheikh Modou Lamine Serigne Sidil Makhtar ba ci jëm ju tedd ji yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér kenn ku ci nekk. kenn nattabliwul ne Serigne Atou yóbbu na sa ngërëm démb rek mag kii ñoo àndoon ci euh, yëf yi bi ñu ñëwee ma ne ko waxuma la doom yi sëñ Tuubaa yi de waaye mbindee fi suñu borom yi am seen ngërëm kenn xamul nuñ toll loolu moo ko may lii kon nag noo ngi koy delloo ñaanal njëggalu yàlla di ko dollee ñaanal yërmande yàlla ndax lu baax du doy di ñaan it yàlla sunu borom taas ñu ci barkeem euh, lislaam ñàkk na Sénégal ñàkk na waaye yoonu murit ñàkk na sun borom dimbale na sëriñ bi nag ba am na ñu mel ni yéen ndax bi mu bi mu ñëwagul muy sëriñ aatu ci bopp liggéey bi kenn xamu ko woon wala bokk ñi ko xamoon bariwuñ waaye yàlla dogal na yéen ñi mu àndal tàggat na leen ci lu ngeen sa war a tàggatu nag muy liggéey sëriñ Tuubaa kon yëf yi kanam rek lay jëm ngeen di ko ñaanal saa su nekk nag di gën a woy liggéey bi ndax sos na loo xam ne ba keroog bis penc du ma sa far ndax fi mu jëm dara am du far mu Seex naa mu du Bamba kon dañ leen ginnaaw bañ leen ko saaree yéen tamit ndax lu olof di wax loo xam Masamba Masamba gën laa xam boppam ñu ngi koy saare mboolem ku nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah waaye mboolem ab murit buy takk der ndax da doon takk der Euh, niñ ko mën a tuddee ci ci ci ci jàmbaar yi gën a mag ci wàllu àdduna muy ab soldaar kenn warentiwul ne moom la woon Sëriñ Tuubaa moom daan guddeel di ko bëccëgal man yàlla def ma ca defal tawféex sunu sëriñ ba Cheikh Saliou Mbacke boole woon na su ma jumul bu dul 96 di 97 ba ni ku tedd ki làqoo ñu nekkoon ci kër sëñ bi ma xam ko nag bu baax ci li ma war a xam ci moom donte xaw ma lépp. mu nit ku jàmbare mu nit koo xam ne yemalu sëñ Tuba ak dara dara dara dara dara ci àdduna am na bis sax mu ñëw ci ci sunu wayjur Cheikh mu Lamine sëñ bi ne ko man de sëñ Aatu bëggoon naa am na mu la laaj waaye nag bu ma nëbb mu ne ko waaw waaw Mbàkke moo ko sañee kii de mu ne ko naa bëgg nga wax ma yan yan garab ngay jëfandikoo daal ca cawarte gi nga àndal siñaat joxoñ ko loxo bi na ko yow rek la waaw keroog man mii sax jox na ma fa addiya ngir bég ci laaj gi ko sëñ bi laaj te loolu mën naa ne man këri sëñ Tuubaa yëpp mën nañ koo seere këri sëñ Tuubaa mën nañ koo seere ci moom mu nekkoon jëmm joo xam ne eh, yàlla dimbali na ko nag ndax àdduna ñaari coono rek moo am coono bànneex wala yoon si bilaa wala beneen bi waaye moom ak dundam lépp da ko joxoon sëriñ Tuubaa wax naa ko ñuy dem ma ne ko ah ku ko fekk fee mu nekk dana ne man rëccu naa lu moom def àdduna ndax ki mu diggaaleel noonu la toll ci suñu borom yàlla dimbale ko nag muy nit koo xam ne ku ko ku xool ku xool jëmm ji rek ak taalibe ngay wax te loolu tax doy na jur xool leneen waaye dafa bokk ci ñu alxuraan di wax naan afa man saran laahu sadrul islam fa huwa ala nuuri min rabbihi mooy ñi nga xam ne seen dënn yaatu na yaatu goo xam ne seen dënn sel na sell goo xam ne seen dënn rey na rëy na rëy goo xam ne eh, seen seen dara maanaam jooyale wuñ ko mbiru suñ borom ndax mbiru sëñ Tuubaa mooy mbiru suñ borom ndax ku am ngërëmul suñ borom ku am ngërëmul am nga ngërëmul suñ borom loolu yàlla dimbale na ko ci muy nit ku ku yaatu nit ku laabir nit ku oyof nit ku baax nit ku bëgg lu baax waaye grade bi mu bëgg ku ko ko tudde mooy nit ku bëgg sëñ Tuubaa te ku bëgg sëñ tubaa kenn gunu laa nekk jullit ku bëgg sëñ tubaa kenn gunu laa nekk xol xal bin salim maanaam xol bu sell ndax sëñ tubaa amul dara lu tax sunu sunu yaakaar teeg ëllëg mun Amadou xaa da koy junju saa su nekk ba barki démb gis naa image boo xam ne Cheikh Amadou Lamine da ko wool ba mu ñëw ku xool tele bi sax da ma ca gis maa ngi taxaw ci wet gi munu ne ko suñu aatu Baye Jibi Njaay moom it yàlla na ko yàlla yërëm mu woo ko mu ñëw mu ne ko waxoon naa la ne la du ma la gërëm fii ci nit ñi dañuy dem ba ca ki tax ngay liggéey ma gërëm la loolu ku ko ku ko dégg gis gis gis gis jotaay démb bi xam ne loolu am la te waxuma la sax njabootu sëñ tubaa waaye dem ba nekk sëñ tubaa ci kaw suuf dara ci àdduna du rëy ci yow dara jaralu la ngay wax nit ngir lu ko neex boobu nag Cheikh Modou Lamine xamoon na ne moom moo koy jiitu ci saayir waaye dana ko fekk si moo tax mu ne ko dama lay bàyyi bañ dem ba ci ki tax ngay gërëm ma gërëm la loolu nag kon day tekki ne rek dëkkaale na ak Serigne Touba ndax moom la dëkkaloon ci ci ci àdduna nit bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee bokk fu ngeen jëm da ngeen di ànd kenn ku ne xam ne ne léppam Serigne Touba la ko jox kon suñ ko waxee ne ko bu ëllëgee danañ dem ba ci kanam sëñ bi ma gërëm la loolu lu neex a jàpp la ndax daraam jiituwu ko keroog maa ngi koy wax nit booba sax euh, mi ngi ci kaw suuf ma ne ko is bu tarxee de ñu bari dañoo am kumpa ci ñoom. ma ne ma ne ko man de bi may nekk sëñ Saliou ci li ma xam rek berne yi ñu daan defal sëñ Saliou bu ma la waxoon lim bi par bis te sëñ bi du leen ko jox am ku ne ma ah ma ne ko yàlla xam na ne de am naa ci lu leer nañ waaw waxuma bari nga xam ne mooy euh, daayira yi ñëw ak gani sëñ bi ñëw booba booba mooy bi fi ndawul Mouhamed Cissé ñëwee barki dem boo Ndiaye rek ma ci waxtaan nit ñu gis si yi mu daan ne ma waa ñoom lii lii xanaa sëñ bee leen ko jox ma ne ko déet ñoom kay nii lañu xam waaw li tubaab di wax alee lañu xam waaye xamuñu retour waaw ñoom dañuy jox sëñ bi rek waaye xamuñ jële ci sëñ bi di indi seen bopp lu dul nag ñaani sëñ bi rek kon nag euh, liggéey la boo xam ne daal euh, sëriñ Tuubaa rek moo ko mën a am ndax loolu yàlla moo ko defal waaye sant yàlla nag bi mu ko jaaree lee ci jëmb ju tel ne sëriñ Aatu ngeen ànd ko ak moom ànd bu rafet nag wax dëgg yàlla xoolu leen jëmmam xoolu leen ne suñu nawle la xoolu leen ne suñu nàngam la waaye dangeen ngeen xool rek ne. moo nekk ci seen kanam ngir liggéeyal Serigne tubaa kon loolu dañ leen koy siyaarewaat yéen tamit te di ko delloo ñaanal yàlla jëmm la joo xam ne daal euh, Sénégal xamuñu li ñu amoon yàlla daf ñoo nattoo nag ñu mel nii bu ñu leen amee suñ leen gisatut la ñuy doog a xam dëgg-dëgg seen ay dayoo boo gisee vidéo yi génn ci internet bi rek ñu bari dañuy dañu naan ah xaw moon na nangam ak nangam xaw moon ne nangam ak nangam kon daal jëm la joo xam ne suñ lamin Euh, wax dëgg yàlla mënuñoo wax ci moom waaw mënuñoo wax ci moom ngir li mu def sunu yaakaar rek ëllëg teeg ëllëg waaye ngir li ñu séq ak moom man fii ma nekk nii xam ngeen ci bari ay berndeem daaw fi jóg lu ne indil na ma ko am na màggal goo xam ne sax indi na ma ay ay ay yëfi busa busa yoo xam ne ay gâteau yoo xam ne maanaam dañ cee bind sama tur wallaahi ay kees yoo xam ne man xamoon na sax ay ay yëfi busa busa ci nekk ngir fonk mu ko fonk te noonu la yaatoo ci njaboot Sëñ Tuubaa gi tey ji lii ma wax li muy li muy ñàkk-ñàkk solo koo dem ci buntu kër sëñ Tuubaa yi loolu lay wax te loolu dana seere nit nag buy dund ñu bari mën nañ ko ko umpale ndax loolu mooy doomu aadama doomu aadama dafa mel ni ci niñ ko mën a misaale ab xaal danga ko gis nii rek waaye tànk euh, xaroo ko ba xam doo xam la ca biir loolu mooy jëmmi sañu atu nag dafa ump ñu bari waaw dafa ump ñu baree bari gis nañ ko rek ci bopp liggéey bi gis nañ ko muy laxasaay gis nañ ko muy dem ak dikk waaye am na liggéey yu sew yu ne ci biir yoo xam ne ak jikko ju ko suñu borom defaloon ci jimmi boppam loolu umpalu ñu bari waaye tey jii fee mu tëdd xam na ne Serigne Touba rek mat a liggéeyal fee mu fanaan biig moo ko gënal téeméeri junni yoon fi mu fanaan barki demb loolu yàlla yàlla dogal na ko waaw dañ koy delloo ñaanal njéggalu yàlla rek ak yërmande suñu borom di leen ñaanal yéen tamit yéen ñi nga xam ni yéen la bàyyi ndéegul liggéey bi lépp lu mu ci yéene woon yàlla mën na ko te mbiru sëriñ bi kanam la jëm dégg naa ñu ne ku tedd gi eh, joxe na ndigal eh, ci sëriñ yuusu muy koo xam ne it seede na lu bari sama diggante suñu aatu seede na lu baree baree baree bare sama diggante suñu aatu bu sëriñ bi joxee ndigal nag ñun duñ mën lu dul jëfe ndigal li dañ koy ñaanal yàlla moom tamit ak yéen ñi mu ko àndal yépp ci dara ji sëriñ bi eh, liggéey sëriñ bi day sotti waaye yàlla na sottee ci yéen ci barke sëriñ Tuubaa jërëjëf jërë ngeen jëf euh, jërëjëf euh, mu doonoon sëriñ Saliou Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu Cheikh Mouhamadou Fadal yaakaar nag kàddu yi mu seere ku ne xam na ni lu wér la loo xamante ni dund na ko digganteem ak Serigne Atou euh, bis ba itam ku ne gis na taxawaayam la muy xat-xat-xat dikkal na boppam ànd ak ñun lépp ñu déglu nag di ko sant bu baax di ko gërëm di am mbégte ci jataay bi nga xamante ne fekk nañ ko fi di ñaan suñu borom mu gën ko fee yàggal ba moom itam mboolem yéene yi nga xamante ni am na ko ci Serigne Touba suñu borom defal ko.